dafa bàyyi lépp fam doon jàngale privé catholique ñëw ànd ak man lépp loo xam ne lu ma bëgg la loolu la bëgg lépp lu ma wax loolu la wax lu ma waxul waxu heure bii tey nekk département mu dëkk commune sud ma taxaw jàkkaarloog Benno bi yëpp 36 entités politiques ma ne leen Matar Mbengue mi bu ma sañoon mu nekk commune sud ñoom ñëpp ñu accepté ko ne d'accord nañ loolu. ma woote département bi ñu ñëw. ñoom ci seen wàllu bopp ñu ne maire yow la ñuy investir pour le département te six communes yëpp ay responsables de parti légalement constitué ñoo fi ñëw wax te depuis boobu ba léegi département de Kër Massar ba ñu investiree Moustapha Mbeng déggaatuñu kenn ku taxaw fii ci département bi ne bi dama ko soxla te loolu warul jaaxal kenn parce que dafa normal ndax nag jamono ba may wax département de Kër Massar am na sax ñoo xam ne gëmuñu woon sax ne loolu mën na am dañ doon diingat gëmuñu ko waaye te yàlla def na loolu concrétiser wu na am na waaye nag ñun Sénégal lu sotti am boroom lu sotti am boroom moo tax nag man damay dalal seen xel ndax nag xam naa son excellence le président de la république bu baax a baax a baax a baax te sama diggante moom sax dépassé na cadre politique diggante bi ay frère la grand frère petit frère kon yaakaar naa ne dalal leen seen xel moom li mu war a def xam na ko lépp lu mu def rek noonu la te li mu war a def dana ko def Abdou Ndoye mii dama koy sant bu baax di ko gërëm moom tamit bu nekk xale bu yaru bu am base toog depuis 2008 ba léegi moom mu ngi ci parti bi te liggéey liggéey yu mucc ayib ba pare am mbooloo ci Parcelles Assainies di fa def lu rëy. te xam ngeen ne commune nord bi ñuy wax découpage bi dafa déséquilibré ndax dañoo jël lu mat 2000 hectares 500 hectares yi ñu def ko commune sud 1500 hectares yi ñu def ko commune nord kon commune nord mat na commune sud ñetti yoon mooy commune bi ma dëkkee ma si côté infrastructure boo xoolee même ñun réalisation yi ñu def ak yi état def ak yëpp boo xoolee lépp mi ngi commune noor commune sud presque infrastructure amu fa kon commune bu rëy boobu tey Parcelles Assainies unité 1 ba 18 soo ko génnee ci commune nord dara du fa des ba pare moom mu dëkk foofu loolu moo tax waa APR yëpp daje na ñun Abdou Ndoye mii mooy suñu candidat au niveau du nord wax ko donc kon moom tamit am na mérite am na mérite parce que tey jii jàng bu dee jàng jàng na ba am ay lijaasam yi war a am ñëw nekk sama wet ci mairie bi liggéey ñu dugal ko ci finance su bi mu nekk fi comme régisseur te dégg ngeen mairie bi bi may jël mairie bi 218 millions moo nekkoon budget bi. tey mairie bi budget bi mi ngi ci un milliard six cent quarante trois mille kon ñoom am nañ compétence kon mairie bi ñi fi nekk xëy na si ci taay wala ci melokaan wala ci lépp soo ñu gisee man nga ñoo xeeb ñu ci bëri sax ah, ñi àndul ak ñun ñoom dañoo xeeb bi ñuy commencé am na ci ñoo xam ne dañ ma daan xool sax ne ma attanoo mairie bi. ma leen di tontu naan leen bu dee lu ñuy yenu la ci bopp attanu ma ko waaye su dee loo xam ne bopp rek moo koy liggéey attan naa ko. ndax nag 27 ans de carrière municipale nga ko nga def ko yaakaar naa ne même boo nekkee jeune boo nekkee xale war nga xam nan la ñuy doxalee mairie war nga am compétence. te loolu prouvé nañ ko nag ci côté yëpp Kër Massar fii képp ku ànd ak Moustapha Mbengue dama ne sooy dox. siggil ci kaw ku wax taxawal déglu ko parce que bu dee en terme de réalisation amul luñ fi deful mairie bii rek boo ko xoolee li ko wër yëpp ay tali karo la ak éclairage public solaire fii ngeen toog ab bâtiment la léegi ngeen jàkkaarloo al bâtiment la te loolu rek ci réalisation la bokk boo doxee tuuti fekk fi am marché boo xam ne zeng woon ñoo ko defar fii ci ginnaaw sem moo fi nekkoon tey sem bi gën a moderne ci Afrique de l'Ouest moo nekk fii ci ginnaaw fa la nit ñi toxu pour ne citer que cela loolu mooy li ñu wër fii kese te loolu mën nañ ko wax fépp ci lépp kon bu dee da ngaa avancé ci budget avancé ci ay réalisation bu yàggul rek inauguré ngeen fi crèche ak na boo xam ne ay partenaires commerciaux ñoo ko def dërëmu état dugg ci dërëmu mairie duggu ci kon réalisation wala liggéey nañu wala liggéey liggéeyuñu kenn wax ko waaye son excellence le président de la république Macky Sall tamit tey bu Kër Massar changé mais Kër Massar amel nañ ko njukkal même bu ma defee plaidoyer mais moom moo accepté l'ensemble des doléances de Kër Massar wax ko fii ba pare jëf ko ñaan gis ko kon yaakaar naa ne moom yelloo na sant yelloo na waaye nag bu ñu soxor loo bañ-bañ lëg nangul ko ay gudd noppam ak mën a daw ñun rusuñu ci li ñu gérer ci Kër Masar nii boo fi yemoon sax mu neex loolu laay wax chaque jour. donc. Ah, jërëjëf